biotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw am na booy piis si rido yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may sen journal de la santé dal leen ak jàmm ab campagne médicale lañu jagleel askan way yeewoo ca dëkk bu ñuy wax Djibélor ci département bu Ziguinchor ñu amal fa ay consultation gratuite yoo xam ne ay médecins spécialistes ak i paramédicaux teewoon nañu fa desale nañ fa nag ay feebar yu bëri yoo xam ne dafay jàmp ñu jël leen en charge loolee di initiative wu CACSUB ci Longo ak fondation port autonome de Dakar benn Michel Kanfoudi. équipe médicale bu am ay spécialités yu wuute ak itam ay infirmiers ay sages-femmes ay pharmaciens lañu daal di yóbbu fële ca Djibelor ci ex village de reclassement boobu nga xamante ni mu ngi ci localité le ngir fa askan bu fay yeewoo te duñu fay dara li ni mel nag ki ko def mooy centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de promotion ñu koy wooyee CATSUP te Ibrahima Elwa Sarr jiite ko. caravane médicale boo xam ne ay acteur de la santé yoo xam ne dañu xarañ ñoo fi nekk mais surtout ñu indi. benn camion boo xam ne camion de cardiologie la boo xam ne équipe yu xarañ boo xam ne sax dañuy accompagner équipe nationale ñu ñëw tey pour faj nit yi mais aussi xool nan lañ mën a def pour jàppale waat davantage village de reclassement bi c'est bien ñuy faj mais il faut ñu jàppale leen pour que ñu changer condition de vie des femmes et des jeunes lii moo taxoon ñu ñëw may fi ay matériel pour dispensaires yi may fi ay bourse consultation gratuite yu ni mel nag fondation port autonome bu Dakar moo ko gunge ba Badara Sall di représentant bi nag di rafetlu lu ni mel ba pare di ñëw ci ay perspectives. projet bi nga xamante ne moom lañ ñëw def fii nii euh, à Djibelor nekk na projet boo xamante ne bu yitteel fondation prioritaire je pense que par rapport ak ay perspectives yi nga xamante ne am nañ ko ak ministère de la santé et de l' action sociale am na yeneen projet yoo xamante ne inscrit dans le cadre du programme santé de la fondation dinañ ko mën a def aussi bien ak waa CAPSUB ak d' autres partenaires. jàngoro yu bëri nag daal dinañuy feeñ ci consultation gratuite yooyu la bu ñu sukkandikoo ci kàddu docteur Modou Ndiatt Diouf moom mi nga xamante ni mooy coordonnateur mission bi. on a vu l' affluence on a également décelé certaines choses certaines pathologies qui vont naturellement chargé aussi ci structures yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi hôpital régional ou bien district loolu aussi ñu ngi si commencé di def ay jéego assistance sociale bi mu ngi ci intervenir bu baax. ñi nga xam ni ñoom la ñu jagleel paj moomi le nag daal di nañuy rafet lu mbir mi ni mel donte sax daal di nañuy sàkku ndimbal bu bëre bu jógee ci nguur gi ak i partenaire am ci doon jokkaaken fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. pour Sud FM. te yemook ñaar fukki fan ci weeru sulet ñuy door ay activités yoo xam ne dafa soxal microbiote microbiote nag ci wàllu wérgu yaram di loo xam ne dina tax ñu jël en charge symptômes yenn feebar yi nee nañu sax dafay gën a dëgëral immunité nit ñi looloo tax mu am solo lool moo tax nag ñu amaloon ci ab gëstu boo xam ne ay kàngamu médecin ak i gëstukat ñoo ko amal ngir renforcer résilience sanitaire dëkk bi jaarale ko ci lu nu mel ñu duppee euh, microbiote mbokk déglukat yi fii la yem ak yéen ñu yendoog jàmm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 Bonjour chers auditeurs, campagne médicale au profit des populations de l'ancien village de reclassement de Djibélor dans le département de Ziguinchor. Des consultations gratuites leur ont été offertes avec des médecins spécialistes et des paramédicaux. Plusieurs pathologies qui méritent une prise en charge y ont été décelées. C'est une initiative du CACSUP en partenariat avec la Fondation du port autonome de Dakar, Ben Michel Kanfoudi. C'est une équipe composée de plusieurs médecins de spécialités différentes accompagnés de pharmaciens, d'infirmiers, de sages-femmes et d'assistants sociaux qui été déployés à Dibelor pour des consultations médicales gratuites en faveur des populations de l'ex-village de reclassement de la localité. Une action à l'initiative du Centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de promotion que dirige Ibrahima El Wassar. Cette caravane médicale qui est notre 15 au niveau du Sénégal et 5 dans la région de Ziguinchor vient à point nommé parce qu'il a permis aujourd'hui de mobiliser un camion pour faire des consultations gratuites. Nous sommes venus aussi pour soutenir les dispensaires de Djibelor et de Medina Sherif, mais également donner des bourses aux élèves. Parce que pour développer un village de reclassement social, il faut qu'on puisse avoir des jeunes bien formés. Ces consultations gratuites l'ont été grâce à l'appui de la Fondation du port autonome de Dakar. Son représentant Alun Badarassal loue l'importance de l'acte et énonce des perspectives. Au nom de M. Muntagasi, président du conseil de fondation, à d'autres perspectives euh, avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc euh, pour d'autres projets, je pense que la fondation est ouverte et à d'autres perspectives pour qu'en fait euh, qu'on puisse venir Euh, considérablement en aide à ces populations qui sont vulnérables, qui sont au niveau de cette localité. Plusieurs pathologies sont décelées par l'équipe médicale selon le docteur Modoundat Diouf, coordonnateur de la mission. Il y avait la cardiologie avec des ECG et puis des écocœurs qui ont permis de déceler certaines pathologies qui nécessitent également des prises en charge souvent un peu onéreuse quand même pour euh, une population démunie et qu'il faudra faire des actions. À noter aussi beaucoup de pathologies diverses, notamment les épigastralgies et les syndromes ulcéreux. Peut-être que ça fera l'objet d'études, mais il y en a beaucoup dans cette zone-là. Ainsi que chez les enfants, les limboconjonctivites également chroniques, à savoir les yeux rouges là, il la précarité. Ben Michel Confoudi Ziguinchor, Sud FM. La santé par le microbiote, quel impact du microbiote sur la santé du patient Le microbiote permet de prendre en charge les symptômes et les causes réelles de la maladie. Le microbiote humain permet ainsi de soutenir l'immunité du corps, d'où l'importance de cette étude menée. Plusieurs